suratu shuaraa yi saaru waykat yi makk la wàccee màkk la wàccee loolu ulamaawu ñu néew ci ñoom ci am na ay yu ci wàccee madina waaye li nottal mooy saar makk la wàccee ibnu abbas ne na ñaari téeméeri aaya ngi ci shuara ak ñaar ñaar fukk ak juróom-ñaar su fekkee ne taat taat sin mim du aaya kon mu ne ak juróom benn waaye ñi en tout cas Xafsa ñoom taa siin miim la kon nag ak juróom-ñaar noonu lañ koy jànge inna nuun ak sin gi da nga koy lidgaam ci mim mi ta sin mim noonu lañ koy sama borom rek nag moo xam lu mën a ma ci baasin boobu ba maasu ko tilka loolu ci des nag ayatul kitaab bi aayay téere bi la almubiin bu di aji bir yàlla na yonent bi weddi gi nit ñiy weddi xanaa def laa metti ba nga bëgg ci rey sa bopp mënoo ci dara laallaka baaxiun nafsaka bul rey sa bopp allah yakoonoo bu ñu nekkut muminin di way gëm yàlla bu ci rey sa bopp laallaka ndax yow baaqiun aji alak nga nafsaka sa bopp allah yakoonoo ba ñu nekkatit muminina di way gëm yàlla ndax loolu da nga cee bëgg alak sa bopp jaru ko inna sha ñu neexoon day nu nazil ñu wàccee alayhim ci ñoom min asamaai bàyyi ko ci asamaan aayatan kawteef goo xam ne su ñëwee ñépp ñëpp danañu gëm neex ak naqari su ma neexoon man yàlla ma indi kawteef gu leen di tiital ba ñëpp danañu gëm kon nag bu amee ñu gëmut bàyyil bu ci rey sa bopp ñu wàccee ci ñoom aaya boo xam ne su dikkee fa dallat dal di yendu anaaqum seen doq ya xaadiina di way toroxlu lahaa ngir ragal kawteef googu te defuma ko wa maa yaatihim du dikkal leen min dikrin ci waar min arrahman gu bàyyee ko ci yàlla mu wax dasin gu ñuy waxtaanee di ko nettali amul benn kawtéef bu jóge ci yàlla mu ñëw ñu di ko waxtaanee ak di ko leeral ak di ci tiit wala di ci bég illaa kaanu lu may ñoom yéeféer yi ñu nekk ñoom muridina di way dëddu anhu ca kawtéef googule kon faqat kadaba weddi nañ rek fa sa yaatihim xal sa naa dikkal leen am ba uma kaanu soleil lañu nekkoon yastaziuna di yejji ko bii ci loolu bur ne awalam yaraw mo ndax bon dañoo seetut ilal ardi jëm ci suuf si su fekkee lu ma indi ñu weddi ko xanaa dañoo seetantalut li nekk ci suuf li ma ci def ci kawteef day tekki sama katan war nañ ci joxe ba gëm ma ba xam ma kam ñaata anbat naa la ñu saxal fiyaa ci suuf ci xeetu gàncax ku ko xam ki jógee kajoor bu ñëwee dem saalum ñu wan ko garab du xam nu mu tudd saalum saalum bu jë demee jolof ñu wan ko ak garab xamul nu mu tudd bu yàggul rek am na genn garab ci alquran ku dëkkul njàmbur ca kaw ak jolof bu ñu la ko waxee aw tur nga cay xam doo ko dégg muy nguy sigar jolof rek lay am ca kaw ca njàmbur kon nag ana ñaata gàncax la yàlla def ci kaw suuf kenn xamut leen kan kam ambatna fiha min kulli zawjin bépp xeeti gàncax boo xam ne karimin aji tedd la zawju foofu maanaahu nawu na fi dalika aji nekk la ci loolu laayatan kawteef a ngi ci waaye wa maa kaana nekkut ak tarum gën ji bëri seen day mu'miniin di way gëm ak lu kawte fi bëree bari ba gën a bëri wa inna rabbaka nag sa borom la huwa moom al aziz mooy aji not ci kàttanam ar rahim mooy aj yëram dellu si siwaat na ci Muusa ak firaw na ak mbooloo ma daanaka sa Muusa nettali woon nan ko intégralement bàyyi wuñ ci woon dara fii nag day def talxiis talxiis mooy résumé résumé lay def ci xissa Moussa ni mu koy résumé xajaas yi def ne xissa Moussa ak na saari alquran téeréb kaw bi ba ca suuf bi fu nekk rek daanaka wax na ko fa mu ne nga tàmbali ci baqara laaraaf yunus huud taha shuaraw namli xasas xafiri sajda naziat fu ci nekk nettili na ko fa waaye nag ay anasir la ay élément la ak i tem tem bu ci nekk day am ci saar wuñ ko gën a développé léeg mu développé ko ci benn saar ñaari yoon mu ne bu fekkee juddug Muusaa la ak nàmpalam loolu xasas moo ko nettali ak taaha bu fekkee Muusaa ni mu yaroo ci kër na la Shuara bii moo koy nettali mu ne waaye ni Muusaa génnee Misra jëm Madyana di daw xaraja minha xaayifan yataraqabu kooku mu ne Taaha nettali na ko ak xasas Moussa na mu dëkkee ci suuf ci réewu Madiyan ak na mu fa wàcce looloon ca xasas mu ne Moussa na ko Shuaybu tontoo mu sàmmal ko juróom-ñetti at wala fukki mu door ko may jabar loola nga ca xasas waaye Moussa fi mu dajeeg yàlla ci waadil muqaddas mu ne ma ngi ci taaxa waaye ñëw na ci xasas ñaari yoon ñëw na it ci nam li ni yàlla yónnee Moussa ma ngi ma ngi ci soratu taaxa ci ñaari béréb waaye ñëw na ci shuaraaw ak naziat ni Moussa jógee nag Madiana di ñibbi ñibbisi Misra pour woo si na loolu nag ci laaraaf lañ ko jàngoon lañ ko jàng ci shuara Moussa ni muy dàgg seen teg Firawna ba Firawna naan moom mooy yàlla loolu ci taaxal lañ ko jàngoon daan ko jàngaat ci Shuara li Firawna di réeree yàlli Moussa ji bay woote ak yàlloom loolu ci xasas lañ koy jàng ak ci xaafiri kawteef yi yàlla joxoon Moussa muy juróom-ñeenti kawteef ya loola ca laaraaf lañ ko jàng wal jaraada wal qumala ila axiri naka nonu jang nañ ko ci yunus dana ñew ci taha mom kawtef ye ya. ak non ci shuara ndax juróom ñenti kawtef la won gannaaw jaraadal qumal ak dafatia ak dammoog tamsu boog ak wat i demé ni ki non mune firaw na wey ci ga di lor bani israël ba Musa na ra genn ak bani israël lolu ci laaraaf lañ ko jang ak ci ghafiri ñaari yoon waye fexel ga firaw nay fexel musa ngir bëgg kaa rey loolu ci ghafir lañ koy jàng labal gën labal firaw na nag bay fa yaram wa mu ne ñu nga nekk kawtif ba yowmal qiyam loolu jàng nañ ko ci li araf ci isra ci namli ci qasas ci zuxruuf ba ca naziat génn gi nga xam ne ci la musa génn ànd ak bani Israël nag dal di ñëw ba ci baxru xalzoom bëgg jàll Firawna dab ko fa mu dor yet wa ndox ma teqali ko mu jàll Firawna ñëw dal di fa lab loolu ci laaraaf lañ ko jàng ak ci Yunus ak ci Isra ak ci Taaha ak ci Shuara ak ci Doxaan loolu mooy résumé qisatu Moussa ni mu tasaaroo ci alquran fii nag dana fi jël ab cër bu xaw a yaatu mu ne wa iz yow yonent bi jàngatal ba wooyee rabbuka sa borom Moussa Moussa ba yàlla di woo Moussa naan ko an eey iiti dikkalal alqawma nit ña addalimina ña di way tooñ ñan la xawma na badal la ci xawma bu njëkk ba te loolu borom bayaan nee na su fekkee ne arab dafa indi benn baat def ci liif ak laam mu ne ba yàgg mu defaat baat ba defaat ci liifag lam mu ne kon baat bu njëkk bi kat mooy bu mujj bi benn la waaye su indee benn baat def ci liif ak indiwaat ko amul liif ak ba tey kat bu njëkk bee bu mujj bi badal rek lay doon ci moom siraatal mustaqim ak siraatal lazine waaye bu indee baat muy nakira mu indiwaat ko muy nakira mu baamtu ko kon baat bu njëkk beeg bu mujj bi jotewuñ dara moo tax yonent bi ne jarul ngay tiit ci àddina ñàkk gu nekk rek jafe gu nekk ñaari yomb ñu ngi ci kanamam ndax yàlla moo ne inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran ñaari yusri yëpp am na lif ak laam kon benn jafe rek la ñaari yusri yi amut lif ak laam kon ñaar la yonent bi ne lan yuxlibal yusraani usrun waaxidu comme li borom bayaan wax wa an imaamil mursalina waaridu lan yusraani usrun kon nag fii bu indee al mu am li fag laa mu indeeti qawma firawna kon bii badal la ci bi kon bu jëkk bay bu mujj bi bii taara na bale taarawut moo tax mu nekk badal an itil qawma daalimin ñan la qawma firawna allaa yattaquun ndax duñu ragal yàlla qaala wax Musaa ne rabbi yàlla yàgg may yónni ci na mu mbaru mii ini man dey xaafu ragal naa an yukaddibuuna ñu weddi ma te man dama naqari deret bu ñu ma weddee rek damay daal di mer daal di xeex ñu rey ma wala ma rey xaafu ragal naa kat an yukaddibuuna ñu weddi ma de ndax weddi neexut te man mënu ma koo muñ ndax wa ko day xat sadri sama xol te man bu ma meree wala yantaliqu boyul du boy lisaani sama làmmiñ dama mën a waxati ndax man làkk woowu fàtti naa ko ndax man nàmpuma ko israil yi la waaye fanweeri at laa fa jóg fukkeet maa ngi ci àll bi ba dégg fi arab sama lamiñ boyut ci làkku xibt làkku africain woowu fàtte naa ko te nag aw làkk boo ko déggut boo ci xuloo dañu lay gaaw a dañ lay gaaw a not loolu moo tax doomu aadama li mu nàmp li mu dëgëree ci moom xam nga nit ki làkk wu mu jàngate nàmp ko it bu meree ci làkkam la mën a saaga saaga moom ci sa làkk rek soo meree rek da nga cee dellu da nga gis koy wax ab tubaab yagan waaye tubaab bi maa ngi koy dal di dellu ci lim nampoon te jàng na ko kat mën na koo wax waaye loolu moom booy géntit ci saw làkk ngay gént moo tax Moussa ne bu caaxaan fàccee nag namp ma loolu te kon buñ ma ci xasee ma mer soo meree may dal di ci xibt wala ci arab ndax wala yan tariqu lisaan ci loolu kon nag farsil yónnil ila haarun sama rakk haaruna ma nga fa mosu faa jógee dégg dégg na làkk wa naa fekk ñu yónni ko mu di ma dimbale te nag defoon naa fa dara defoon naa fa gaaf wala hum ñeel na leen àll yi waroon ma zan bun bakkaar ndax reyoon naa fa nit te gis nga ni ko ko firaw na waxoon naan waaw alam nu rabbika fii naa walidan u faalta faalataka allati faalta du yow dañ laa foroon ci dex gi yar la fi nga def fi li nga fi defoon mu ne loola fàttewuma ko defoon naa ko fa wala hum a zanbun faa xaafu ragal naa nag an yaqtuloo na ñu jàpp ma sax rey ma foofu nag borom bi dal di jëfandikoo wéetoo nag ne kallaa déeréet du ñu la rey dara dara du la jot fazaba dem leen rek bi ayaati naag samay kawtéef naa ñun yàlla maakum noo ngi ànd ak yéen mustamiuna noo ngi déglu lu garanti la kël firaaw na fa quulaa wax leen ko ne innaa ñun rasulu rabbil alamin yónin tëb borom bi ndéef yi lanu ngeen wax ko ne que anarsil na nga yónni ma ana ànd ak bani israil yu jaamu ji yàlla te bay jaamu xëram ah mu dem wax loola firoon nag aha yow sama baay for la teg la fi ñu yar la fi sama baay adopté la te kooku moo doon sama magu baay léegi dee na man maa fi firaaw na nga yaakaar ne fàtti naa ko mag yow maase alam nu rabbika ndax yaruñ la ci sun kër bay wali dan nga dikku ñu for wala bis nga sax fii naa ci ñun min umrika ci sab dunda at ko faalta nga defi faalata ka sa jëf ju bon jooju ëti ji nga xamne faalta defon nga fi nga rey fi nit dal di daw waante te yow al kafirin ya nga bok ci yéefar yi tay nga ñew naan yalla la yoni de wax lu metti amulo bay dañ la for sama kër bàyyi nga yaroo sama lekku bàyyi nga lekk ba màgg defoon nga fi bakkaar ab rëy nit ñu lay wër nga nëbbu tey nga ñëw ne yàlla la yónni jooju wax wàccee na ko wàccee boo xam ne bu ak ndigalal yàlla du mën demati waaye xaala wax Moussa ne waaw izan ah, defoon naa loolu isan boobu wa ana man min adallina bokkoon naa ci ñi kenn yónni wut dañ yónni wuñ ma woon ba xaw ma lii loolu moo fa faratuma daw min kum ci yéen لما خفتكم بما لن رجلي ما دو ليجنك فوهب ماينا لينيال مربي سنبرم حكما أتبي وجعلني يالا دفنا من المرسلين ما بقى تيني يرنيني تهيد من دوما ويدي سنبرم وتلك لولو نعمة قيولة تمنوها دن كوي قيول دف دف كوي قيول مم مم عليه كمن أنا عبدت نجام بني إسرائيل قيول جوجنا نقمنا دمالين كوي نياخي yow ngay jaamloo bani israil la bëgg nga bàyyi ko xaal wax firaw na ne waaw maa rabbul alamin rabbul alamin mi ngay wax mooy kan kan mooy borom binde fi ku mooy man xaala wax Moussa ne rabbul alamin a du yow ndax rabbul alamin mooy rabbu samawaati ki moom asamaan wal ardeeg suuf uma baynahum ak li ci diggante bi in kuntum dem nekk ngeen yéen mbooloo mi wër firaw na moo xinee di way wóolu loolu kii la firaw na ne ah waaw ji wax ñor na di mbaa bu ko nit ñi dégloo duñ ko far gëm bàyyi ma xaala mu wax li man xawloo ñu ko war ah ala tastamiuna dégg yéen a ngi dégg li muy waxam xaala wey Moussa di wax ne rabbukum koo seen borom de wa rabbu abayikum mooy borom seen bàyyi al awwalina ñi di way jëkk xaala wax firaw na ne aha inna rasulakum bu fekkee am na ci yéen ñu ko gëm daal seen yonent bii alladi ursila ilaykum bi ñu yónni ci yéen la bañ noonu dof la Moussa faalihut xaala ma ngay wax rek ne yàlla day rabul mashriqi moo am penku bi wal maghribeeg sowu bi wa ma baynu mag li ci diggante bi in kuntum taaqiloon bu ngeen amee xel xaala wax firaw ne ne aha léegi daal caaxaan jeex na lay ni taxasta boo fi jàppee ilahan yàlla xayri ku may man laa jaalan naka dinaa def la minal masjuni ne ca kaso ba rek léegi ñooñu ñu tëj daal ci la lay boole beneen yàlla bu dul man daal boo ko fi bëggee indi kaso nga jëm qaala wax Moussa ne waaw awalaw jiituka xanaa balaag maa tëj kaso kay damay def bàkkaar awalaw jiitu ko ndax donte indil naa la ba shay'in ci lëf mu biin lu birit danga ma tëj rek yow qaala wax Firawna déedéet faati bihi indi ko indil kawteef in nekk nga kay mina saadiqina dëggu am nga kawteef indi ko indil lu yéemu luy wane ne yàlla la yónni fa alqaa Muusaa sànni fa isa ci betteel Iya yadwa dua, mu nek nyangor mubinun nak nag mu dee ji bir jig ñangoor bi mom du janu ñangoor nak mu biin la mu ne ben ngok firaw ah, ne ya ndax am nga benen wa nazaa mu summi genne yadahu loxom bi ci jibam fa isa ya ci betel bayda loxo ba daal di tal li nazirin ñel ñakoy xol xool mel mu ne benen ngok qaala wax firaw ne lil mala yi ñeel mbooloo mi xawlawoo ñu ko wër ne waaw inna haada naka kii kat la saaxirun jabarkat la alim bu xam jabar nag yuridu bëgg na nag an yoxrijakum mu génnee leen min ardikum ci seen suuf si bi sexri ak jabaram gi le fa maasa taamuruun lu ngeen may digal lu may defak ak kii waay dafa bëgg jabar ba not ñu xaaloo ñu ne ko arjihu muñal ko yiixe ko jàngoon nan baat bi ci gannaaw ne ci lañ jëlee marji a arjihu yéexe ko tuuti waa xaaw ak mbokkam ngel tekk rek wa baas nga yónni nag fil madaayin ci dëkk ya xaashirin nga ne leen nañ ñëw mbir moom ñu nekk di way booloo nga yónni ñëpp ne nañ ñëw ndax Égypte ñoo fi gën a bari jabar wool bu xaaba yépp ñu dikk yaatoo ko ñu indil la ñu dikkee la bi kulli saxaarin bépp jabaraakoon alimin bu daa ji xam ni moom mu ñëw ñu jabarante ñu ne noonu lay def fa a booleef saxaaratu jabarkat yépp li miqaati yowmin ci rendi wu bés boo xam ne maalumin bu ñu xam la muy bésab gaaw wa qiila waxeef li naa si ñeel ni ñu ne waaw xalaantum ndax yéen mujtamiuuna ndax yéen waaye bëgg ngeen a daje ku bëgg seetaan na ñëw loolu mooy xalaantum mujtamiuun ku bëgg seetaan ñëwal laala naa ndax nun na tabiu ñu topp saarata jabar ga in kaanoo bu ñu nekkee hum ñoom hum ñoo di way not ñu xam ne ñoo not ñun itam bu notee ñu xam ne ñun ñun la ñu dal di daje nag ci samedi ja ci yoor yoor an yoxshara naasa duxan falamaa jaa ba dikkee saaratu jabar ya ñu ne sànni leen xaalu ñu ne ñu ne li firaw na ah balaa noon jongante kat dañuy seet lan la ñuy fay gannaaw njogante gi ay na la na ndax ñeel nañu laajaran yool in kun naan dem nekk nañ nax nu ñun alxaalibiina ñoo di way not ndax sun gañee dana am ab yool xaala wax firaw ne na am waaw waaw wa innakum yéen kay isan bu ngeen gañee waxuma sax fay leen waaye laminal muqarrabin ci pale bi ngeen di dëkk ngeen di bokk ci ñu ñuy jegeel buur bi ah ñu ne kon loolu de jar na ko gaaña a dugg ca qaala wax la wum ñe leen Moussa Moussa ne coow li bari na alquu sànni leen maa antum laa yéen mulquuna da dangeen koy sànni ci géew bi rek def leen ko fa alqaw ñu sànni xibaalawum seen buum yañ indi woon wa isiyum ak seen yed ya ñu sànni ko géew ba fees della della della ak i jaan géew bi yépp ñu def koy jaan wa qaalu ñu nga naan bi izzati firawna ci màggug firawna ci la ñuy sànni naa ñun dey la naxnu ñun alxaalibuun ñoo di way not Moussa tàmbali di lox nag yàlla ne ko Moussa sànnil sa yeddi waa ji la dayal mursaluun man ku ma yónni dootul dootul ragal fa alqaa mu sànni Moussa asaawu yetam wa fa isa ci betteel hiya yet wa talqafu ma ngay lekk maa na lépp lu ñu doon duudal yàlla ci njabar di ko fa teg yet wa daal di lekk lépp jaani ñangoor ja Moussa sànni lekk na lépp la nekkoon ci géej bi mu wan na ko taxaw nag jàkkarloog nit ñi nak di busu ak di len dak fa qiya daanu lof nermelu saharatu jabarkat yépp ñépp ñu ne nërëm ci suuf sajidi nañu di way sujud xam nga mbir mu nek boko ko lol lu ci bokul rek nga xamiko gaay dañu xam jabar lol biñu lu ci bokul rek ñu sujudal yalla ne li bokut li lenen la qalo ñu ne ñun kat kii jabarut leneen la ndax njabar dara réeruñu ci te lii xamunu ko kon li yàlla la kon aman naa gëm nañ bi rabbil alamin borom bindeef yi lée ñu ne mooy kan mu ne mooy rabbu Muusa wa Haaruun qaala wax firaw ne ne aha complot la amantum la lahu gëm ngeen ko qabla an la lakum njëkk may joxe ndigal ci gëm gi sax gëm ngeen ko xam naa ko na innahu Muusa mi la kabirukum mooy seen mag la si mi nga xam ne àllamakum xamaloon ne leen sexra jabar gi waaye man xam ngeen nu may defam dama leen di jàpp yéen ñëpp rey leen bugg leen daaj leen ci garab yi fala sawfa taalamuuna xal sa ngeen a xam la wuqatti an na danaa dagg aydiyakum seen i loxo wa arjulakum ak seen i tànk min xilaafin cib jàllawle loxom day joor ak tànk ab càmmoñ wala ko danaa daaj leen ca kaw garab yi ajmaina yéen ñëpp yéen jabarkat yi xaalu ñu ne ko ah, bu yebo laa dayra loolu ñun duñu lor ndax ñun xam nañu àddina day jeex te li ñu gëm àllaaxira tax kon loolu mënul noo lor ndax innaa ñun mun xaliboona way delu lañ ila rabbina jëm ci suñ borom ñun kay natma no ngi yaakar ci suñu tub gi an yaghfira di baal lanaa ñel ñu rabbuna suñu borom khatayana suñu bakar an kunna ndax ndax nekkoon nanu awwalal muminin jël be nak ñi gëm li legi nak firawna lolu moy mooy li ko ci mbir mooy nañu gagné ko ñoŋante ne ñu gañe ko bu xaabay firawna ya far topp Muusa mu ne kon nag doole ci deskat kat daal di dajale dooleem ak i ngànnaayam ne bu ëllëgee ma dal képp ku bokk ci bani Israël wala nga gëm leen dinaa la rey wala ma génne dëkk bi yàlla ne yéex nga waaw xay naa ñun wax yu nañ ilaa Muusa jëm ci Muusa biig ne an asri na nga rañaan bi ibaadeeg sama jaam yi ngeen génn mi réew innakum yéen mu tabauna gaa yi dañ leen topp daw leen dañ leen topp jëm leen Palestine danañ leen topp fa arsala yónni firawna fil ni ci dëkk ya xaashirin ñu ñëw ñoom ñëpp mbiroom ñu di way booloo ba ñëwee ba wër ko ne ko waaw firawna loo wax mu ni inna haawulaayi naka ñii di bani israil la shira dimmatun as mbooloo la xalila xaliloo nañu tuuti wa inna ko innahum ñoom day la xaa isoona way merloo lañu la naa ci ñun mbooloo su tuuti lañ te merloo nañ ñu wa innaa nun nak la jamiun mbolo lañ hazuruna mu ñeppay watandiku ndax suñu ngannaay ak suñu katan burne yalla ne non la def ba génne leen dëkk bi ndax buñu ñu alkoon ci bi dëkk bi sax kon ñu yàq ci alal ji dara waaye bëgg naa ñu génne dëkk bi alku ci bitti alal ji des fi ñu gëm yàlla jël ko waax rek naam ñu génnee leen min janaatin ca tool ya wa uyooni nak sewnde ya wa kunóosi nak ndamba ya wa maqamin ak place ya muy maqama ya karimin yu tedd yépp ma génne leen ko ñu alko ci àll ba kazalika naka noonu waaw res naha donnaloo nañu alal jag dëkk ba bani israil seen gannaaw faatbaahum ñu topp leen mushriqin ñu nga jëm ca penku Égypte maanaam ñu nga jëm ca baaru xalzoom pour jàll dem Palestine ba ñu si ci géej ga Musaa ne yàlla inaa la mudrakuun gaa yi ñuy jodde ñu nga nee di si sama borom ne kalla duñu leen jodde moo tax mu ne fa la matara ba séenantee aljamaani ñaari mbooloo ya qaala wax asaabu Moussa gaa yi ñoo ne Moussa innaa ñu ndey la mudrakoon ñu ñu nar a jot lañ gaa yaa nga ne le qaala wax Moussa ne kallaa déeréet inna maa yi ànd man rabbi sama borom sa yaa diine jubal ba wax ma ni may def fa waxi naa ñu dal di wax yu ilaa Moussa ne ko an eey adrib dóoral bi asaaka ci sa yet wa albaxra géej ga mu dóor ko fan falaqa mu xotteeku fa kaan nekk kullu firqin bépp kuré ka taw di nekk mel niw doj alazim bu daa ji màgg ndox mi dal di ñaar ndox mi dal di wogu wogu wogu ba ca kaw bàyyi ay xal yoo xam ne dafa dem ba ca beeñ ba wa aslaf naa ñoo ngay jegal nag su ma foofale alaaxari na ñeneen ñi no ngay jegeel firaw nak nitam ñi ngay gëna jégé ci si gañu gaañu soobu nañ jall nañ bañu jallé jàllee ba jàll firaw na yëg ni qus ak pëndam ak ab xarem gaay xol ko ne yalla nu ñuy def nak moy nu musa def sobu len gaay dal di sobu. waan jeena musal nañ won ma wa ak ñaan ak ñom ajmain suma axraq labal nañ al-akhirin ñen ñi inna fi zalik aji nek li ci li hit la kaw téefa ngoog tey waaye waaye nagu maakaane nekkut aktarum ñi gën a bari ci ñoom mumine di way gëm yàlla way na rabbaka nag sa borom la huwa moom al aziz mooy aji ci kàttanam arrahim mooy aji yëram ay jaamam mu ñëw ci qissatu yonteel ibrahima alayhi salaatu wasalaam nettali woon ko ay yoon waaye mu ngi koy waxaat mu ne wat lu jàngaltal alayhim ci ñoom naba ibrahim soloy ibrahim nga ne ko nu mu doxee woon mu ne is qaala bu muy wax li abi ñeel baayam ja azara wa qawmi yeeg nitam ñe ne naan leen maa taabuduun lan ngeen di jaamu ibrahima dal di ñëw ne waaw yaay yaay kuy sa yow ku la moom yaayam ne ko sa baay mu ne baay yow ku la moom mu ne namrud mu ne namrud ku ko moom ñu ne ko yaarey gémmiñ kooku di yàlla nga naan ku ko moom ibrahima moom mu ngi mu ngi laaj ne leen maa taabudun xaalo ñu ne ko ñu ndey gannaaw gannaaw namrud moom naabudu dañuy jaamu xanaa asnaaman ay qiram te te yàlla yi yàlla yi namrud leen yëlif namrud it yàlla yee ko yëlif fa dallu ñu yendu nu sax àkki fi ne di way sax lahaa ci jaamu xiram qaala wax ibrahima ne waaw kon nag ñëw leen ñu discuter su fekkee xiram yi moom ngeen di jaamu hal yasmaunakum ndax dinañ leen dégg istadauna bu ngeen leen wooyee aw na yanfaunakum wala ndax dañ leen jëriñ aw na yadurunakum wala ndax dañ leen lor xaala ñu ne déedéet ñun kay bal wajet naa fekkoon nañu rek abana suñ bàyyi yafalu nañuy def kasalika noonu ñun kay dañ ca fekk bàyyi ak maam rek ki ñu doon jàngal ne dinay bàyyi mu ne yenn baax mu ne gis nga bu baaxul doom ci la xala nekk lu may lu néew koo gis rek ci dinay bàyyam lay nekk bu nekkut ci dinay bàyyam rek mu ne bàyyam yaru ko waaye bu fa nekkee ba ci yoon wa muy am sax yoonu bàyyi jala bu ko yaree bu amee sax weneen yoon rek bàyyi jaa ko yarut kon dina bàyyi na bàyyi góorgóorlu ndax dineem baax ndax bu baaxut kat xal naa yàq ñi ca topp ñëpp gis nga ñii luy seen lay wajat naa abaana kazalika yafaalu ndax lu bàyyi di def moom doom daf ca war a da ko war a def rek loolu yaakaar ne mooy régal xaala wax ibrahima ne waaw afaraytum du ngeen ma solo kon maa li ngeen nekkoon bu taabuduuna di jaamu ko antum yéen wa abaawukum ak seen baay waxuma baay leen jur sax waaye al aqdamuun jëkk-jëkk ya muy maam ya ba ci yéen li ngeen di jaamu fa innahum ñooñu àdduwu noon la lii ñeel ma man de lépp lu ngeen jaamu te yàlla rek sama noon la moo tax mu ne illaa rabbil alamin lépp lu ngeen fi jaamu lu ma yàlla man sama noonu la ndax ya man sama yàlla la si mooy ki nga xam ne xalaqa ni bind na ma foo moom yaa di ni moomay jubal ولزي موي كيغا خامني هو يطعموني داف ماي ليال ويسقيني موي ماي ناندال واذا مرضت سما اوبي فهو مام يشفيني مام يسافر ولزي موي كيغا خامني يميتني مام يري ويحييني مودي مدي دوندال ولزي موي كيغا خامني من اطمع دما ياكار ان يغفر مبالي نين ما خطياتي سما نياوتي يوم الدين بس بس بايبا ربي يال حبلي يا نغا مي حكمان اتي وعلقني يا نغا ييغال ما بالصالحين تي وي يوي ني بما بوك نيوميت نين تاغو بغاس وجال يا نغا ديف لي نين ما لسان الصدق في الاخرين ني موجي نيو loolu mooy bayre aku yiw fu ñu la tuddee ne ku baax la mooy lisaanal sidqin fil aaxirin am na ko wajaal ni yan na nga def ma min warasati jannati naim ma bokk ci ñuy don don na aljanay xéewal wax fir yan na nga baal nag li bii sama baay yàlla baalal sama baay dina woo naka baay day kaana nekk na min addaali na ci way réer yi de loolu moo ko ko moo ko ko dëloon moo ne ko woon sa firu lakk comme waxoon na ko nag foog dana ko def waaye jubluwu ci dara illaan mawidatin wa adaiya da ko ko dëloon rek waaye ba mu ko wóoree ne bayam du baax mu génn ci mu ne kon ibrahima dal di wax loolu mu ne wala tuxzini bul toroxal ma yowma yowma yubaasuun bés ba dee fi dekkal nit ñi de ndax keroog yowma laa yanfaa mooy bés ba du jëriñ maalun alal wala banuun du caagin ay doom du jëriñ illaa man lu mooy ku dikk ci kanam yàlla ak alal jaag doom ja te mu dikkal yàlla bi qalbin ànd ak xol boo xam ne salimin bu mucc la ci bokkaale loolu rek mooy jëriñ keroog ndax bu kerogee wa uslifat jegeñaleef aljanatu aljanna lil muttaqin ñeel ñi ragal yàlla wa burizat génneef aljaximu safara lil gaawiin ñeel way réer ya wa qiila waxif lawum ñeel leen ne waaw yéen aynama kuntum ana li ngeen nekkoon taabu taabuduuna di jaamu ko min duni laay te duhut yàlla ku doon jaamu ku dut yàlla yàlla ne ana ki nga doon jaamu xaal yansuruunakum ndax danañu leen dimbale ba du ngeen dee ndax danañ leen dimbale ba duñ leen lakk ndax dañ leen dimbale ba suuf du leen lekk aw yantasuru ndax danañu dimbandikoo ci yéen yaakaar naa yantasuruuna minkum walakin laa yansuruunakum bi yàlla waxee loolu nag ne wax la joo xam ne day ju leen jaaxal la mu ne ko ndey fa kub kii bu alageef dëppeef juutaleef jetteef fiyaa ca safarahum ñoom ñoo ñu réeroon wal gaawuuna ak ñi leen doon réeral yépp ñu jëtt leen ci safara way réer ya way bew yaak ñi leen bewal yépp ñu jëtt leen foofale ak ñan wa junoodu iblis ak lil bi ànd ak iblis ajmaoona ñoom ñëpp nag xaalu ñu ngay waxante waxum ñoom fiyaa ci biir safara yaxtasimuuna ñi ngay xuloo taalaahi génn nañ ci yàlla in ku naa naka nekkoon nañ la fi dalaaleen ci réer mu bineen guddi ji biir yéen ñii ndekki mënu leen dara yéen a ngi ni nekk ak ñun ci safara sa ñu ndekke noo dofoon isnu sawikum bañ leen di yemale bi rabbil alamin ak borom bindee fi ndax loolu amun amun ko fi bari na ci nun ñoo xam ne sax bëgg dañ wax ne lu yàlla am soxlawuñu ko waaye ana fu ñuy mujj toog nekk ñu ndekki noo réeroon bi ñu leen di yemaleeg rabbil alamin wa ma adallana réeralunu ilal mujrimun def ko ci bàkkaar yi rek ñoo ñu réeral ndeke fa maa la naa ñeelu ñu min shafiina way ramm ñun dañu yaakaaroon ne kii daal ku ñuy rus la boo àndeek moom boo deful dara itam boo demee ñu rus ku rekk ñu ramm ndeke fa maa la naa min shafiin wala sadiqin amuñ benn xarit xamimin bu sellu xarit bu ñuy dimbale ana lan mooy nekk seen mébét ñu ne falaw ana la naa donte ñeela nañu karratan genn ak kiin nu akkaat àddina dellu fa kon day fa nakkuuna dana nekk minal mu'miniina ci ñi gëm yàlla du baaxati buur ne yow mi demagul foofu inna fi zalika ji nekk li ci wax ji laa ayatan kawtéefa ngoog de war nga cee waaru balaa ngaa waroo noonu waaye wa maa kaana nekkut ak tarum gën ji bëri seen day mu'miniin di way gëm yàlla wa inna rabbaka naka sa borom moom lahum al aziz mooy aji ci kàttanam ar rahim mooy aji yërëm ay jaamam mu dellu si ci qissatu nuux alayhi salaatu wasalaam moom it dawe woon na buur ne kaddabat weddi woon na qawmu nuuxin kalimatu qawmu mën nañ ko góoral mën nañ ko jigéenal daf ko jigéenal nag moo tax mu ne kaddabat ndax qawmu ak njigéen nekkut ci baat bi te itam baat bi ci boppam du mbooloo xanaa baat bi mooy ismu ismu jinsi jamaa su fekkoon baat bi ci boppam mooy jumla mooy jamaa ñu ne kon loola moo tax waaye baat bi dafa rëy ndax ismu jins turu wa yépp la mooy xawmu te arab dafa waxoon ne mbooloo ci làkku arab jigéen la am na benn nax wi bu ko wéyoon ba ay nit dajee fale fexeel ko ne dañ koy rey tiitut ñu ne ko lu tax doo mu ne mbooloo jigéen lañ kenn ku dëgguma leen man inna qawmi tajammacu wa li qatli taxaddasu laa ubaali bi jamcihim kullu jamcin muannasu loolu moo mu ne kaddabat qawmu nuuxin al mursalin baatu mbooloo jigéen la ko arab di def toujours is qaala ba wax noo lahum ñeen leen axoom seen mbokk ma noox ne yéen àlla tattaquun xanaa du ngeen ragal yàlla daf leen a gaaral waaye dëgëralut waxut àlla tattaquun siddu ko daf ne àlla tattaquun xanaa du ngeen ragal yàlla kooku taarid la waaye defu ko taxdid kon waxam nooy na wax ji def na ci yar pour rek ki muy woo mën koo topp mu teg ci ne indi man de lakum ñee leen rasulun yonent laa aminun bu ñu wóolu lu yonent bu ñu wóolu mooy duma fen li ma wax yépp dëgg lay doon fa taqullaa ragal leen yàlla waati uni ti ngeen topp ma loola la leen noox wax alayhi salaatu wasalaam argument yi leen di jox yu am solo la bu jëkk bi mooy da leen a gaaral ragal yàlla gi rek forcé wu ci kenn ñaareel bi mu ne ku wóor laa duma fen ñetteel bi waxul ragal ma def na ragal leen yàlla te topp ma ci lim ma digal ñeenteel bi ci anaasir yi boobu nag moo gën a am solo xam nga waxtu woy wootee jëme ci yàlla boo ca laxasee dara rek ku am xel daf la koy bàyyee waaye bu fekkee laxasoo ci woote bi dara ah yàlla dong ngay tax loolu nag la wax mu ne wa ma asalukum man de laajuma leen ali ci topp gi min ajrin benn yool sasuma bayluhuma teguma kenn leen ma asalukum alayhi min ajr ndax man maa ngi kër kër yi waaye fi ma yaakaar yool du ci yéen in ajriya déet sama bi yool illa ala rabbil alamin lu may mu war borom binde fi kon argument wooteem mat na fattaqullaha leen yàlla kon waatiuni ngeen topp ma ci lii lan lañ ko tontu xaalu ñu ne ko gis nga kii argument ni mu dëgëree waaye ñu koy weddi li ñuy indi ci lay ni muy doye dee ana ah, uminu ndax dañuy gëm laka ñeel la wa tabaakati topp la al ardaluuna way suufe yi al ardaluuna baadolo yi ñooñu rekk la topp de yow gisuñu kenn ku am maanaa ku la topp qaala wax na wax ne wa maa ilmi déeta xam sama de bi ma kaanoo ci lañ nekk yaamaloon di def ko ñi ma topp daal li ñuy jëf xaw ma ko wootewuma sax xam ko kon nag seen ak kaweeg seen ak suufe du sama mbir ndax duwut maa leen di xisaab in xisaabuhum déet seen xisaab illa ala rabbi lu mooy mu war sama borom law tashcuruun su ngeen yëgoon loolu te nag wa ma ana déet man bi taaridil muminin du ma dàq nag ñi ma gëm ñi ma gëm di ma topp gëm yàlla du ma leen dàq de ndax in ana déet man illa nazirun lu may ma nekk kuy waare mu biinun ku daa ji biir jig waare xaalo ñu ne ko léegi sax wax ji sonal nanu soo ko bawul sax nu rey la lay lamtan tey boo daytalawut ci wax ji yaa noox la takkuuna na da nga nekk léegi min al marjumiina ci ñu ñu jam ba ñu dee xaala wax na woon rabbi yàlla ah inna qawmi sama nit nag yematuñ waaye kadda boo ni weddi nañ ma te tëkku nañ ma legi nak tey yaa ma li, lii te junne at ngi ni yu manki juróom fuk maa ngi ci te musuma wax lu ñaaw musuma ko def legi nak sonna yan nga atte nak bayni sama diggante bay nu mag fatan ab atte bu gaaw te boy atte nak yalla woon na jinni nag musal ci la ngay atte de won maye ko ku ak man minal mu'minina ci ñi gëm yalla yalla ne mo taxit ba atte ba muy tufan ba faan jey musal nañ ko man maaw ko ak filful ki ca gaal ga al gu guñu ga suma agraqnaa ñu labal baadu gënaaw ga albaqi ni ñu ci dess inni fi zalik aji nek le ci lu layatin laayatin kawteefa ngoog genen wa ma maa kaana waaye ak torom gën ci bari ci nit ñooñu muminin di way gëm yalla way ni rabbaka nak sa borom de la moom al aziz moy aji not ci katan ar rahim moy aji yëram ay jaamam mu ñew ci qissatu hud ak nitam ña moom it nettali woon nan ko mu ne dabat weddi won na it aadun nitu aadiya weddi nañ kan al mursalina ñay yon won ña is qala ba waxe lawum ñe akhum axum seen mbokk ma ragalial. ne ala tattaquun xanaa du ngeen ragal yalla inni man day lakum ñeel na rasul yonente la aminun bu wor fa taqullaa ragaleen yàlla ti ngeen wa ma asalukum la ali ci top gi min ajarin ben yool in ajriya deet sama yool ila ala rabbil alamin lumay mu war borom bindefi Nurogi taxna kangi dañuy jame sar wi pour diko tari ndax li wax da koy waxat te bu jexé mu indi kenen mata muy runge atabnuna ndax da ngeen di tabax bi kulli ri'in bepp tundu ayatan kawtéef mu di tabax ba sotal nak ta'basuna ngeen di fo yalla jox len kat na xam-xam tunda wu ne ngeen tabax fa ngeen di fo wa tattaxiduuna ngeen di jàpp masaania ay liggéeyukaay laallakum ndax yéen lu doon ngeen béelu yéen ngi ci isin yi kër-kër yi ndax ngeen yàgg fi ngeen développé ngeen yàgg wa ida batashtum su fekkee dangeen nar a songoog yàlla day batashtum kon léewaato ngeen jabbaari na ay mbër taqullaa ragal leen yàlla waaticu ni ngeen topp ma yéen yéen a ngi mbaru ba su ngeen léewaatoo ay mbër ngeen di doon su ngeen di xeex kenn du len di man am ngeen ay usine di liggéey di développer ndax ngeen yàgg fi étage bu ne ngeen tabax ko ci tund gannaaw ga ngeen di fo di ca teg fataqullaa waatiuni fataqu lladi ragaleen yàlla mi nga xam ne amaddakum moo leen tëbb bi taalamuuna li ngeen xamut amaddakum mu dolli leen bi amin ci jur wa bañi na ki doom wa janaatin ak aljanna wa inni man axaafu ragal naa ci yéen bu ngeen ma topput aadaaba yowmin mbugalam bés azimin bu dee aji ñu ne eey hóot sawaawun alayna sa wax ji bari na nga wax nga noppi daal mooyem ci ñun aw asta waar nga am lam takku nekkoo minal waaidina ci way waar yi waaye ñun nii la ñuy mel bur ne in haza déet lii ilaa xuluqul awalin lu mooy muy ñu njëkk ñi rek mooy aljahlul murakkab ak taanit ak inkaarul mu abbat kooku xuluqul awalina la wa ma naxnu déen ñun bi mu addabi ne ñu di ñuñ bugal ñun li ngay wax ñun concerné wuñu ñun kenn duñu bugal in haza déen lii ila xuluqul awalin lii jikku la walla nga ne aaday ñu njëkk ña la aaday ñu njëkk ñi mooy nit ko xam mel la mel wax du jeexital ci moom dara wa kaddabuhu ñu weddi ko wa alaknaahu moo tax alak nañ leen inna fi dalik aji nekk la ci loolu laayatan kawtéef wa maa kaana nekku daak tarom ngeen jëbëri seen muminin di way gëm yàlla wa inna rabbaka nak sa borom la huwa moom al aziz mooy aji not ci kàttanam ar rahim mooy aji yëram ay jaamam mu ñëw ci qissatu saalax ak nitam ña samuud ñoom it noonu la nettali woon nan ko mu nekk dabat weddi woon na samuudu al mursali nañuy yónni ña is qaala ba waxee lawum ñeel leen axuum seen mbokk ma saalex ne alaa tattaquun xanaa du ragal yàlla inni man de ilakum ñeel leen rasulun yonente la aminun bu ñu wóolu nag fattaqullaha ragal leen yàlla waaticuuni te ngeen ma wa ma asalukum laajuma leen alayhi ci topp gi min ajrin benn yool in ajriya naka déet sama yool illa ala rabbil alamin lu may mu war borom bindee atutrakuun ndax yaakaar ngeen def dees na bàyyi leen rek fii ma hahuna ci li nekk fii ngeen weddi yàlla ba pare ñu baleen fi amine ngeen di am sécurité kóolute loolu ngeen yaakaar fi janaatin ci àll tool yi le wa uyunin ak sewnde yi wa zuruin ak mbay yi wa naxlin ak tàndarma yi yi nga xam ne taluuha poccetam ma la muy focci hadimun aji gotteeku la wa tanhituuna yéen a ngi yett minal jibaali ci doj bu yooten ay néeg farihiina mbir moom ngeen di wéy rëy rëylu fattaqullaa ragal leen yàlla wa atiuni te ngeen topp ma ci li may wax wala tutiu bu leen topp amral musrifin ndigalal way yàq ya li ci ne ñi nga xam ne yufsidoona ña ngay yàq filaar di ci suuf wala yuslixuuna te duñu yéwénal xaaloo ñu ne innama anta naka yow day minal musaxarin yow yow yow dangaa dof dangaa jommi minal musaxarin bokk nga ci ñi ñu jommal ba ñu dof dañ laa njabar yow daal dañ laa liggéey rek saalax ba nga fi juddoo nekkoon gune guñ yaakaar ci ci dëkk bi le nga ñëw ndekk yow dañ laa jabar ba nga mel ni le xanaa nga fàtte ne maa anta déet yow illa bachar lu may nga nekk di mbindeef mislu naa kem noonu rek kon fu la yàlla yónne fii nga juddoo yaru fii fu ñu la yónne kañ faati indil bi ayatin kawteef in kunta boo nekkee mina saadiqina ci way dëggu indil kawteef qaala mu ne haadihi mu ngi ni le naaqatun ak gëlëm la gu jigéen gu bàyyee ko ci xeer wi kenn xamut gën gëlëm a ko jur te it li leen di yëgal ne gëlëm gi kawteef la maa ko fi indi mu jógee ci doj wi moo di ne day wute gëlëm yi moo ëpp gëlëm yi moo leen sut te day naan teen bi yépp bés bu gëlëm gi ayee naan su naanee teen bi day nga ci kenn du kenn du naanati laa ñeel na ko shirbun ak naan te moo di ab cër ci naan gi wala kum ñeel na yéen bu yow min cere rëb bés maalumin bu ñu xam tey mooy naan bu ëllëgee ngeen root waaye gëlëm gi wala tamussuha bu leen ko laalale bi sooyin ci lu bonde bu ngeen ko defee fa sabab soosa dina tax be yaaxudakum jàppaleen aadaabu yowmin mbugalam bés aadimin bu daa ji màgg ñu woo xudaar ibnu saalit ko jox paak bi nekk ko yow nag yaay ki nga xam ne fu mbooloo nekk njaaxum ba yaa koy def xam nga loolu day am ci mbooloo benn sañ wax boo xam ne su mbooloo ñëwee rek ku ne da koy teggi rek moo koy raq ko kay def ba imaam malikin radiallahu an daf ne woon shafii iza kunta fi jamaatin fa kun askatahum wa in asaabu asabta maahum soo nekkatee ci mbooloo ñuy wax seen waxi àddina mu ne gën a la noppi rek suñu waxee lu baax bu ñëwee ne waaye ñu fi ñëwoon a baax waay bokk nga ca mu ne waaye buñ jumee ka wax rek la waaye in axtaw mu ne axtaw waxdahum mbir mu ñuy teggi ay yu teggil ni ñoom rek kenn ñemewut xudaar ne moom ñemee na gaa yi jox ko paak mu dem la gëlëm nga doget ko def koy saam dugal ci dëkk bi kër gu ne mu dugal fa saam ne togg leen dem nag ñaqte xëpp takk deret yore paak bi ne ne saalax rey naa gëlëm ga dëkk bi moom la ñuy reeree tey loo mën def ko saalax ne yàlla gaañe dey def nañ ma lu ma naqari toppuñ ma weddi nañ ma indi naa kaw téef ñoo ko laaj joxe naa ko ñu weddi ko maa buñ ko laal ñu rey ko taxaw nag ci sama kanam ne loo mën defal yàlla man nag mënuma yow yaa man te yaa ma waxoon def naa yaa ci des gaañaangoog yàlla ne ko ndax suba sori na mu ne ko déedéet lay sa subhu bi suba jege na mu ne bàyyil ba ëllëg rek ba ñu xëyee ci ëllëg sa fa axadahum jàppaleen al azaabu mbugal ma inna fi dalika ji nekk la ci loolu laayatan kawtéef wa maa kaana nekku daak toroom gën jabari seen mumini di way gëm yàlla wa inna rabbaka nag sa borom la huwa moom العزيز ما يجينا تكتنا الرحيم ما يجيرم من يوتي لوت ينتي على لوت عليه الصلاة والسلام ومن يتلو ننكو إبراهيم ما يبعي تخم نكنا إبراهيم بي الله ينكو نبركو يبكو سادوم تبحر الميت bañ ko yóbboo foofu yàlla yónni ko fa waaye fekk na fa nit ñoo xam ne ñu jéggi dayoo lañu ndax loolu ñu naan ak góor jigéen nitam ña moom loolu la ñuy jëfandikoo ñokk ko njëkk a def ci àddina moo tax mu ne kaddabar weddi woon na qawmu luutin al mursalin ñañ yónni ña is qaala ba wax la hum ñee leen axuum seen mbokk lootun ni àlla tattaquun gis nga yonent yi ni solidaire du wax mukk kaddaba qawma luutin al rasulu al mursalin boo ci weddee kenn yonent yi yépp nga weddi moo tax buy al lay wax toujours lootu ne leen àlla tattaquun xanaa du ngeen ragal yàlla inni man day lakum ñee leen rasulun yonent la aminun bu ñu wóolu fa taqu laa ragal leen yàlla waati ni ngeen topp ma wa ma asalukum laajuma leen alay ci topp gi min ajrin genni pay in ajriya de sama pay ilaa ala rabbil alamin lu mooy mu war borom bindeefi na ndax da ngeen di dikkal a zukraana góor ña min al alamina ci bindeefi wa tazaruuna ngeen di bàyyi maa xalaqa lépp bind na ko lakum ñeleen rabbukum seen borom ci jigéen min aswaajikum ngeen bàyyi ko ballu fi nekk antum yéen xaw mun yéen a diw nit aaduna yu jéggi dayoo nag xaalu ñu ne ko eh ñun waxuñ jooju wax li nu wax daal mooy sa coow lii bokk ko bawut dan lay rey wala ñu génne la dëkk bi lay lam tantahi boo daaytalawut ci wax ji yaa lootu la takunan da nga nekk minal muxrajina ci ñu génne dëkk bi xaala mu ne waaw ni may dey nag minal xaalin fokk nag bokk naa ci way bañ li amalikum ci seen jëf xaala yaqliyu bañ lay firi isa qalaytahu mu ne rabbi yàlla na jii ni yàlla nga musal ma wa ali ak sama ñooñ mi ma yaamaluuna na la dinañ def ko yàlla man dey maag képp ku ma gëm yàlla ñu musal ci seen jëf ji bun ko def buñ ñu ko def buñ fekkee fuñ koy defee buñ ci boole suñu njaboot waaye jabar ja bokk na fa najeynaaw musal nañ ko waalahu ak ñoñam mooy ña ko gëm ajmaina mboole seen illaa ajuusan lu may toboronk ba te borom ko mooy màggatam jigéen ñaare ñu doon jàngal daf ñu waxoon ne bu yàlla bu bindee góor da koy booleeg téeméeri seytaane at mu nekk benn seytaane dee ba nit bu amee téeméeri at seytaaneem day jeex doo amati benn mu ne waaye jigéen su ko yàlla bindee benn seytaane rek la koy booleel at mu nekk beneen dolleeku at mu nekk beneen dolleeku su amee téeméeri at téeméeri seytaane lay am mu ne tax na ba màggatum jigéen mu ne doo fekk mukk kenn di ko àbb abal ma sa màggatum jigéen mi déedéet foo ko fekk rek fa la dëkk kenn soxlawul yàq rek lay man moo tax ñu di ko tuddee ajjuus ajjuus boobu day fil gaabiriin bokk na ca ñay des ca mbugal ba moom su ma damar naa ñu alak alaaxari na ñeneen ña wa am naa ñu tawaalim ci ñoo matran ab taw fa saa bon na matarul munzariin tawam ñi ñu doon waar ku ñu waar waaru woo bu taw ñëwee rek de musiba lay doon inna fi zalika nekk la ci loolu la ayatin kawtiif wa maa kaana nekkut aktaruhum gën jëbari seen muminina di way gëm way na rabbaka naka sa borom la huwa moom al aziz mooy aji not ci kàttanam arrahim mooy aji yëram ay jàmm mu ñëw ci asxaabu laykat yi mooy nitu Shuaybu ya ñoom dañu dëkkoon ci béréb bu naat bu bari ay garab bari ay xob ñu naat lool nekk ay commerçant dëkk ca taax ya nag di jaay ak jënd di naxante di peese ñu yàlla ne ko demal foofu nag nga ne leen nañ maandu ci seen peese yi buur ne kaddaba weddina asxaabul aykati waa gol ba weddi nañu ñu yónni is qaala waxee lawum ñe leen Shuaybu ne alaa tattaquun xanaa du ngeen ragal yàlla inni man de lakum ñe leen rasulun yonente la aminun bu ñu wóolu fattaqullaa ragal leen yàlla waati ni ngeen topp ma wa ma asalukum laa juma leen ali ci topp gi min ajrin benn yool in ajriya déet sama yool illaa ala rabbil alamin lu may ma teg borom bindee fi aw foo matal leen alkayla nat wala takunu bu leen nekk minal muxsarina ci ñi nga xam ne dañuy wàññi alali jàmbur bu ñuy peese wala bu ñuy natt wazinoo na ngeen di màndaxe mooy peese bil qistaasi ci peesekaay al mustaqim bu ne coow bu baax wala tabxasu bu leen wàññi naa si nit ñi asiyaahum seen yëf ya wala taasaw bu leen dox mufsidina ngeen di yàq fi laa di ci suuf wa taqu ragal leen lazi yàlla mi nga xam ne xalaqakum bind mu leen wal jibilata ak maas ga al awalin ñi di way jëkk xaaloo ñu ne yow nag yaakaar nañ ne sa bopp bi yàqu na nit ku yore alalam nga ne du ci du ci def lu ko neex yow mbaa inna ma anta naka yawmin al musaharin bok nga ci ñu ñu jinneel ña ñu ñu njabar ña bañu bañu dof ci nga bok wama anta déet yow nak illa bashar nit ku xamul bopam dañ ko koy wax yow nit donga nga misluna kom nun ballu fi nek na zunnu ko jortu nañ la ne la al kazibin ci ka di nga bok sax mune le naruma de man amin la ñu ne narulo mune deret ñu ne daggal asamaan mu daanu suñ kaw boog fas qit na nga rootal alaynaa ci ñun kisafan aw daggit min asamaay ci asamaan in kunta min asadiqin booy waxee dëgg daggal asamaan si ci suñ kaw léegi qaala mu ne Shuaybu ne rabbi sama borom day aalamu moo xam bi ma taamaloon li ngeen di def lu mu leen di tegit moo koy xam fa kaddabahu ñu weddi ko moo taxit fa axadahum jàppaleen aadaabu yow mu dillati mbugalam bésam niir wa dañu toog rek mu tàng jër dëkk bi kenn xëju ci mel ni safara yàlla dajale ay niir ca xurwa ca gannaaw dëkk ba ñépp ñu ne nañ dem kerlu foofu ñépp daw mu génne ñépp dëkk ba ba ñu kerlu ñu ne na haza aaridun mumtiruna haza aaridun mumtiruna niir wi daf ñuy tawal ba ñépp génn dem ci xurwa malaaka ma xaacu leen ñu wow koŋ foofa فأخذهم جبا عذاب يوم ذل ذلتي mbugalam bésam niir wa innahu naka keroog kaana nekk na aadaaba yowmin mbugalam bés la azim du mag inna fi dalika aji nekk la ci loolu laayatin kaw téef wa maa kaana nekku da aktarum gën jabari seen muminin di way gëm wa inna rabbaka nag sa borom lahu moom al aziz mooy aji not ci kàttanam arrahim mooy aji yërëm léegi nag ndem xeet yi yépp amoon na yàlla waxtaane na ko doom aadama ya waaye dañuñ ca seen weddi ga kon mu dellusi si ci alquraan ak mushrikuuna yi ni ñu ko gise buur ne wa innahu naka lii la tanzilu rabbil alamin wàcceeg borom bi ndeef yi la moom alquraan bi yàllaa ko wàcce nazala wàccee na bi ci alquraan a ruuxu ruuxu ga al amin gu ñu wóolu muy jibril ala qalbika jibril moo ko wàcce ci sab xol wàccewu ko ci say nopp waaye ci sa xol la ko wàccee ñu bind ko ci doo ko fàttee sa nuqariwu ko falaatan sa li takkoona ngir nga nekk mi minal munzarina ci ñu ñu waar ña bi lisaanin yàlla ma wàccee téere bii ci aw lammiñ nag arabiyin wu di ko jug arab mu biinin bu biir nag la ko arab bu set wecc nag ci la ko la wàcce tax na ba xam ci diine ji dara te déggoo làkk wii jafe na ñaari erreur rek ndax li nga ciy xam a kas néew dañ koy traduire te traduire moom xam nga tubaab bi dañuy wax ne moom trahison rek la képp ku traduire mbir li nga gëm dana ca feeñ ku tekki mbir la nga gëm moo cay feeñ tax na ba dana jafe nga xam diine ji xam gu rafet te làkk wi doo ko dégg ndax yàlla moo ne bi lisaanin arabiyyin mubiinin da danga cay mos rekk nag am lu ñu la ca mosal waaye du dëggu fekk xamoo lii ndax secret yi nekk ci làkk wi foog nga dégg ko wala du sotti way innahu naka loolu la fi zuburil awwalin ma nga ci téere yu jëkk ya téere jëkk yépp soo ca demee danga fekk ñu wax ne alquran ji ñëw ci muhammad arab lay doon awalam yakun ndax nekkul lawum ñe leen ayatun kawtéef xanaa kay nit koo xam ne mënuloo bind suñu bindee mënoo ko liir te li ngay wax kenn mënu koo dindi bindkat ya di ko bind di ci jëlee xam-xam loolu waroon naa doy kawtéef mata yàlla ne awalam yàkkun ndax nekul lawum ñeleen ayatan kaw téef an ya'lamuhu qamun alquran ji ulamaau bani israil ulamaau bani israil ñom ñep xamoon nañ téré bi ak limuy wax bala mo ñëw loolu rek doyon na kaw téef walaw nazzalnahu bu ñeccuna alquran ala baadil aajamiyin ci lenn ci xeeti làkkat yi fa qaraahu yonent bi ñëw jàng ko alim ci ñom ma kanu muminina bihi duñ ko gëm mukk dañ nan lu tax ñëwut ci sunu lak dañuy lànk ndax ñu reey lañ ka dalika nak non salaknaaw la ñu soob alquran aw la lañu sub weddiga fi qulubil mujrimin ci xolab way weddi ya laa yuminuuna duñu gëm bi ci alquran hatta yaraw qanabatan jakkar lo bok alakhir alazab mbugal ma al alima mu metti fa yaati yow baghtatan ci leen wa hum te ñoom la yash'uruna duñu ko yek fayaqulu ñu wax naan hal nahnu ndax ñun munzuruna ñu ñuy muñal lañ yàlla ne afa yastaajiluun moo ndax dañuy yàkkamti bi aadaabinaa suñu mbugal avarayt moo ndax dooma solo in mataanaahum bu ñu leen xéewalee ci àddina siniina at yu baree baree bari su ma jaawam toppa dikkal leen maakaano mbugal ma ñu nekkoon yu waaduuna defi tëkkoo leen ko bu kerogee itam yàgg gi ci àddina lu muy jëriñati maax naa du jëriñ an mu ci ñoom maakaano li ñu nekkoon yu ma toona defi xéewal leen ko lu xéewal gi yàgg-yàgg ndem mbugal a ci topp bu mbugal mi ñëwee day mel ni xéewal gi amul وما لكنا مسنو علق من قرية تنتوى أبدك تسمية الشيء بي جزء بي اسم الكل لا دو دك بو اي وادك بلا الا لها لمي نيان لين منذرون ول ديوار ذكرى لي اك فاتلي لا لا وما كنا نيكون دالي من دي واي توين دي دا بو فيكون توك توك ريك دال دي مبوغلا وخيت كون لين واي يوني يونت جوخي تيري مو لانك ما دورو بوغل وما كنا ظالمين ñu ne eey yenente bi kat dafa dof jinnee ko feeñu di ko waxal ay mbir mu dina ko nettali alquran ne wa ma tanazzalat wàcceewut bi ci alquran ashayatinu ay cheytaane wa ma yanbagi yellut lahum ñeel cheytaane ñu mën a wàcce alquran wa ma yastatiuna mënuñu ko sax ndax innahum cheytaane yi la maazuluna ñu ñu ber lañ ani sam'i ci déglu alquran sax fu muy wàccee dañ leen di dàq fala tadau bul jaamu maallaahi an ànd ak yàlla ilahan yàlla aaxara jeneen boo ko defee fa takkuuna da nga nekk min al muadabina ci ñuñ bugal ñi de yàlla ak yàlla du ko nangu de nee boo defee yàlla ak danga nekk ci ñu ñuy buggal ña fala tadu maallaahi ilahan aaxara fa takkuuna min al muadabin bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci yenent bi di ko digal di ko laay biir ci wàllu xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi yàlla ne falaa tad'u maa laahi ilaahan aaxara daf ne ko na nga woo ñii la gën a jege ci giir nanga woo ñii la gën a jege nekk na ay joo xam ne métti ne ko lool ndax yonent bi danga lam lim fukki maam door a dem ci àddinaan danga limaat lu war a mat ñaar fukki maam door a dem ci Ismaayil te Ismaayil ak ndeyam ñoo sañ ci dëkk ba kon mel na ni dëkk bi fi la dëkk ndax dëkk koo xam ne sa fanweeri maam yépp fa lañ juddoo kenn gënul la fa dëkk rawaati na fekk maam yooyu ñoo ko sañc Ismaayil maamam moo sañc Makk Qusay ibnu Kilaab maamam drapeau Makka bunt këram lañ ko doon taxawoon Abu Taalib mi ko yaroon moo doon magu mag balaa ñu wax dara ñëw ca kanamam moo doon meeru dëkk ba kon kii fi la dëkk waaye li mu fay dëkk dëkk nag ñetti téeméeri xiram a nga fa ak juróom benn fukk ba ca gën a mag mooy xubal la ca kaw kaaba ga lañ koy teg léegi nag ñu ne ko na nga taxaw foofale sa maam yooyu yépp li ñu gëmoon na nga ko remetre en cause taxaw ci digg dëkk bi ne sama yi yépp li nekkoon du dëgg lii la lii de lañ ko sant yombul de metti na de waaye yàlla ne ko foog danga koy def bi ne ko na nga waar ñi la gën a jege nag mu daldi xëy rekk dem taxaw ca kaaba ga daldi ne waa sabaxa qurayshi woo naa leen suba teel yaa bani kaab ibnu luway yaa bani abdul manaaf yaa bani haashim yaa bani abdul muttalib ba ñépp daal di ko wuy mu daldi woo fatima doomam mu ñu daal di ñëw mu daldi ne musal leen seen bopp ci safara yàllaa ma yónni ku bëgg a mucc ci safara nag na topp ci li may wax ba mu loola baayam abu lahab daal di ne ko Abdul Uzza mooy turam tabban laka alihada daawtana ñu yaakaar lu nekk ngay woote nga ay caaxaan yi nga ñuy woote noonu la jaar ak ñoom foofu yàlla nag ne ko wandir na nga waar achirataka sa giir ga al aqrabin ñi di way gën a jege wax fit na nga suufel janaaxaka say wagg li man tabaaka ñeel ñi topp na la min al muminin nekk ku fay fa in asawka bu la mooyee nag fa qul waxal ni inni man di bariwun aji dañ laa ما تعملون كلا دعين دفكو وتوكل نعي سكنديكو على العزيزي في يالله ميغا قمنا اجي نوت تي كات نملا ارحيم كودي اجي يرم لزي يالله ميغا قمنا يراك مان لاي غيس ان تقوم وقتو غاي تخاو دي جولي وتقلبك اكسا ديمك ديك دي سوب ديمك ديك في ساجدين تي بير واي جولي لو جاخاسو جاخاسو تي مبولامي سا بوروم مان لاي قول انه يالله هو مسمي ماجي دغ العليم مو لجنة قريش dal di daje nag ne gune gi daal jaaxal nanu boo gisee mu jaaxal ñu nag dafa mel nu gune yi melutoon di wax lu kenn daawul wax ñu ne kon fan la teg mbiram ñu ne ko ñu ne kii ab jabar la ñu ne déedéet kii ëpp na jabar kii buxaaba la ndax buxaaba yi ñooy jàngal jabar yi bu leen jàngalee ñu dem di wër dëkk bi kii kay buxaaba la ndax loola ak mbuxaaba dafa amoon solo ci arab ndax boobu lu dul ak yonent rek ak mbuxaaba lay doon te yonent lu sore la daan doon bépp mbir mu jafe ci buxaaba la ñuy dem te loola boo seetee ci taarixul arab da nga fekk ne buxaaba lu siiwoon la lu ñu yéemoon la gis nga hinda bintu utbata mu yaayi maawiya ibn abi sufyan hinda moomu nga xam ne moo noppi xamsatu ak bakkanam ak i tuñam xar bi génnee res wi hinda moomulee nga xam ne tey sa bu doy waar la taarix du fàtte hinda mujj na nekk ku gëm yàlla moo jëkkëram Abu Sufyaan ñu jër Muawiya mu nekk cinquième xalifa yonent bi Muawiya jur Yazid ibnu Muawiya mu dib kàccoor mu toog ba nekk amirul muminina moom Yazid nekk ci nguur gi taarix du fàtte benn arab ñëw ne ko anta ibnu akilatul akbaat yow yaay doomi ki doon lekk res ya noonu lañ ko doon xase yow la samaam doon lekk res ya resi doomu aadama ndax Hind dafa soxor fa soxoroon ba yéy resu Hamsatu ba gémmiñ gi fuur ak deret mu buusu ko yonente bi ne ko sa resu bàyyi ngo ngir soxor rek waaye loolu topp na ko bee biñ duggee ci lislaam it gaa yi dañu ko fàtte ñu ngi tuddee Yazid ibnu Akilatul Akbat Hind nag balaa ko balaa ko Abu Sufyaan denc dafa amoon benn jëkkër buñ naan Faakiya ibnu Mughirata al-Makhzumi jëkkër ji xëy dal di tumal Hind ne dafa njaalo indi ànd ak baayam ñu dem ci buxaaba di seet ndax li mu wax dëgg la doy na waar mbir mu nekk rek buxaaba ba mu nekkee ku njaalo koy war nga koo xam ba muy ba ñu demee ci buxaaba ba ko yëngal ay yëfam defar defar ba yàgg mu nekk jógal dem yow hind yow doo njaalokat tey da nga jur buur buxaaba yi ñu doyoon waar lañ ba ne da jur buur mu walbatiku ne jëkkër ji tey day sama digg ak yow dog na ndax buxaa bi ne dinaa jër buur waaye yow mi may teg lii yow duma ko jur ak yow dal di tas tas ca Fakiya ibnu Mughirata ba mu ca tasee Abu Sufyaan jël ko jur ci Muawiya Muawiya moo nekk cinquième xalifa la ko buxaa ba booxoon ndax daf ne ko sa tali diina malikan ismuhu Muawiya booba kenn xamul li muy wax buxaaba yi dañoo xewoon ca jamono joojale ba tax na lu jaaxal ni ñu ne buxaaba la amoon nañ buxaaba bu siiw bu naan fatimat al xushaiya màkk la nekkoon te it xam nga xisaam lu siiwoon la ak aminatu comme ni ko waykat bi waxoon aminatu ba mu waxee ne dafa gis weer wi di weer wi di daanu ci ay tànkam ba aminatu genté lol nek jank bu tuti dem ci bukhaba ba fatimatul al ba bam ko fa waxé koku def ne ko yow yow yonent bi ñuy wax ci arab ya koy jur looloy wer wi bukhaba yi non lañu melon ci jamono bob te gis nga ko aminatu yegut yagul rek abdullahi tak ko am ak moom ñaari wer tukki daldi fatu mu daldi di amna leer gu nek ci mom loolu la ko buxaab waxoon fatimatal xushaiya amoon nañ ci jamono jooju buxaaba bu tudd chiq anmar chiq genn-wàll ak nit la benn loxo benn tànk benn bët waaye chiq lu mu waxoon rek du deñ lu mu la wax rek ci li ñëw ëllëg dara du ci deñ amoon nañ benn buxaab bu tudd satixu zibi satix xisaam ak xibaaru yenent bi ulama wu wax nañ leen ko ba tey satihu boo wax si gént booy ñëw toog rek dañ ko naan dama gént bëggoon nga wax ma ko rek booy booy boo déglu ko nangam nga gént nangam la yaram wi amutoon yax bopp bi rek ci yax dafay lemu ni benn coupé rek mais ni benn benn ballon rek dem ca kaw ba mu yàgg rek mu dër ci suuf ñu wër ko muy wax nangam dana xew nangam dana xew nangam dana xew satixu noonu la meloon Satyruzi bi mu bisaan daf ne dafa gént li ma gént nag daal daal dina Abdul Masix yow mën na la ko wax danga ma ko laajali satix wala nga wari ku koy xam ndax man fas yi ma gis ñu cëmb jaar ci dexu dij la te wàcc jëm si xijaaz fas yi jaaxal na ma te itam dafa mel ni ay téere la sëf li dal moma jaxal te deg na ne wa Iran sen safaro fayna deg na dégg don ñi doon ndox muy romé yi ndox ma ngiss na kon dal amna lu xew dama ñu bëgg nga laaji ko bu xaba bi abdul masih dal di war mom dal di ñew fekk satih ma ngi ci sukura di waji de mu dal di ko ko ne ko abdul masih ya ñew ci satih war war war gu gaaw gile ndax gént ak mu bisaan gaag ndax safara wa fayag ndax ndox ma ngiis moo taxam mu bisaan de la mu gént mooy fas yooyu saf téere yi jaar jaar ci dijlata dal di génn dal di jëm xijaas loola day li muy tekki mooy am na ku juddu ci fan yii dafa nar di jàng alquran di yore aw yet kooku mooy nekk yonent bi nguur gi day bàyyi ko ci yéen dem ca moom dana fekk rek man nekk tuma fi dana fekk man dem naa rek dal di dee la ma waxoon dara dañu ci mune su ngeen demee fukki buur ak ñeent mooy falu ci yeen bu jeexee mu jeex ki ñu doon jàngal ne fukki at ak ñeent ci la fukki buur ak ñeent yépp falu ba jeex tak mooy ber keroog bi yonent bi juddoo bu xaaba yi pour pour nga mën firi bi téere da ngay xam taarixu arab ak nañ meloon xam seen jamono xam seen adab xam seen luga xam seen aada ak mbuxaaba fii la toll woon soo xamee ne mbuxaaba fii la toll woon ci ñoom kon bu ñëwee ne yonent bi bu xaaba la xeebuñu ko réyal nañ mbiram waaye gëmuñ nag mu nekk yonent ndax loolu xamuñu ko ñu ñëw nag ne kii ay seytaane wàcc ci moom kii bu xaaba la yàlla nag ne kon dama ciy tontu yi leen gënoon a jaaxal daal ab jabar ak bu xaaba ab woykat giir gu nekk famille bu nekk dañuy am woykat boo xam ne su xuloo jotee mo len di xastel bu tagg jotee mo len di tagg comme ni ñi def rek fami bu ne ñu ne dañu am seen ab géwél naan kii suñ géwél judd la xam sa maam sa maam mi mo dee fi maam ma len nangam nangam dug fi genn fi yu ban yi mun na yu bax yi mu wax ko lool askan askan mom goj goj la rek boo pas pasang ci su ko defé arab non lañ daan def yeneen bi jaaxal na len nak ñu ne kon kon jabar la yàlla ne du jabar ñu ne bu xaaba la ñu ne kon du bu xaaba ñu ne kon waykat la ndax inna na ash-shi'ri la xikma waye dafay mel ni xikma tax na ba lu leen jaaxal rek dañuy wax ne lii yaakaar nañ ne way la te way nag way bu fekkee taggoo ci yàlla ak yonent bi rek daganut kon kuy def ngéwél war nga bàyyi xel mbir mi boo taggul yàlla ak yonent bi rek la ngay def daganut boo taggee doomu aadama yonent bi nee nag ku la janoog yow joxoñ la di la tagg daf laa rey benn waaye daf ne diw mooy kii mooy nangam mooy nangam mooy nangam yonent bi ne bu kenn ci yéen rey moroomam ndax janoog sab nawle di ko joxar bi ko tagg xam nga ne rey nga ko ndax dugal nga ko ci ay mbir ci xelam lu nekk yaakaar ne moom la te nekk ko ndax nit boo ko tëggee mu dal di ruus kon ana lan moo baax ci way mooy ki nga xam ne yàlla lay wax wala yonent bi lay wax wala ak waar lay wax moo tax yonent bi ne li an yamtaliya jawfu ahadikum qayxan xata yurwihu xayrun min an yamtaliya jawfuhu chiaran sëb dana daal fees dët nga di ko naan moo gën mu fees ak i way lu may nga xam ne say way danga nga ciy wax luy jëriñ doomu aadama ci diine wala yàlla ak yonentam ndax inna min al bayaani la sixran inna min al chiari la xikma la yonent bi wax bu fekkee nag day way lu baax lu jëm ci yàlla ak yonent bi du way yax yu funax ak maamam yéeféer mu nekk safara kon mu baax ndax yonent bi amoon na waykat muy xasaan ibnu saabit moo ko daan wayal bu ko yéeféer yi ŋàññee ba ŋàñña ko mu ne xasaan oh juhum wa maaka ruuxul quds fayul ma ndax man duma mënuma wax lu ñaaw mais ngañal ma leen jibril nga ngi ak yow ba asan nan leen man yahju rasulullahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawaun asan nan leen man dey man dey inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin ankum wiqa'u sama baye ak maamam ak maamaatam ñep ñun ñoy defandre deru yonnati bi alayhi salatu wassalam xasaan nak noonu la nekké won taxna ba bañu ubé taif saqif bani saida bañu ubé saqif ba l'islam dugg taif ñu fekk fa seen waykat bu mag muy kaab kaab borom banat suadu muy way wi mu tubé ci kanam yonente bi man nañ wax ne jamono bobu kaaba daquna way ci ñom ash'aru wahid ba légui nuqadul udd adabul arabiy dañuy jël kaab comme témoin mu ñëw na xasan ne ko mënoo dara mala dàq way kaab ne ko yow doo dara man fu may wayee yow xasan mënoo faa way ne ko nañ ñëw ci yeneen bi mu àtte ñu ñu ñëw ne ko lu leen indi mu ne dañoo warante maa maa kaab ku ci dàq way bëgg nga àtte mu ne ko ne na teg fi aw way ma dégg yeneen bi moom munta way ndax da daan wax naan boo ko ndilee way sax bu ko waxee dafay damm mu ne wax leen kaab ne man de li ma woy bari na xasaan ne may li ma woy bari na mu ne xasaan déggal ma loo woy mu ne man de maa waxoon ne ibna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin ankum wiqaa'u man maa waxoon ne man man yahju rasulallahi minkum wa yamdaxuhu wa yansuruhu sawaun ah man ngaa way de kaab yow la wax mu ne man maa wax ne inna rasula la sayfun yustadaau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu mu ne ah yow de mën ngaa woy waaye xasaana la dàq woy xasaana nakam waxoon naa la ko mu ne meruma ndax yàlla nee na moom xamut way maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghi la mun taw xamut way nag bu fekkee ay caaxaan la ak tama rek lay and ak ak ndënd su ko defee ak bew dal di dikk ak loo xam ne lislaam ko dafa bindi carte invitation invité waykat yépp ne nañ daje këram benn waay bu sant jaw gàddug tamam rek dal di ñëw dal di bëgg a dugg ñu ne ko amuloo carte mu ne yéen déggu leen alquran du waykat yi la ñuy invité mu ne waaw mu ne man ak tama laa yore yet ana min al gaawin kuy way ngay am ku lay tëggal man ci laa bokk moo tax yàlla ne xal u nabbi ukum ndax duma leen solo ala man ci koo xam ne tanazzalu dana wàcc ci moom ashayaatun ay seytaane ki seytaane wàcc ci moom muy xam ak buxaaba kooku dama leen wax kan la seytaane yi tanazzalu danañu wàcc ala kulli afaakin bépp duudalaa kon yàlla asimin ku di aji def bakaar kii mooy nekk buxaaba yulqaw na ñuy sànni sama dégg ca ñoom waaye wa aktaruhum li gën a bari ci buxaaba yi kaadibuuna way nar lañ wa shuaraa waykat yi nag yattabiuhum dana topp leen ci jàngu xafs wala yatbauhum ci njàngu warsha alxaawuuna ñi nga xam ne ñooy way bew ya wala ñi nga xam ne ñooy way tëgg ya way ngawul ya jëddi ca topp mooy xaawuuna yi alam tara ndax gisoo annahum waykat yi gisoo waykat yi yahimuuna ñi ngay déew fii kulli waadin ci bépp bépp bépp xur rek ñu ngi fay gëlëm di fa taxaw huyam mooy lan ci luxa huyam mooy ku mar di déew aw qur bëgg caa naan mu ne kat yi qur wu ne rek danañ fa dem ndax way kat yi wuñu danañu tagg ku am tagg ku baax tagg ku bon fek daraan fa rek danañu way kon nak fi kulli waadin yahimun ñoo ñu selluñu waa lay way naan am nangam nangam nangam dafa am lu mu yaakaar rek ñoom xur wu ne rek mën nañ faa mën nañ faa dem wa annahum moo tax ñoom waykat yi yaquluun dañuy wax it ma la yafaaluun luñ du def gis nga way lu doy waar la xam nga booy way di tëgg foog nga wax lu amut booy way di xas foog nga wax lu amut da ngay seet albusayri radiallahu anhu ak li muy baax yépp wax na ci way loo xam ne daf lay wóor ne ulamaawul tawxid yépp dañ ko génnee ci daayira tawxid ndax bi muy wax naan yonent bi wa min ulumika ilmu lawxi walqalami wa min ulumika ilma lawxi walqalam xalim ak yàlla gi ak lawxi mahfuuz xam la mu xam ci yow lañ ko jëlee kon lu yàlla y dese inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma lawxi walqalami xam nga loolu ëpp na way nag moo mel noonu booy tagg foog nga wax lu ëpp booy ŋaññe itam foog nga wax lu ëpp gisoo benn arab ŋàññe benn waay la ko wax kenn musu ko wax nit mu ne waa kër gi ñoom ñoo nay ba bu ñu taalee bu ñu seenee gan ñu ne seen yaay na na ca saw na saw ca taal ba mu fay xaw mun xam nga loolu kenn du ko wax nit dafa ëpp xaw mun isa xallati difaanu saaxatahum qaalu li ummihimi booli naar naari waaye nag moo mel noonu soo taggee mu ëpp soo ŋaññee itam fokk mu ëpp rek moo tax mu ne waa na wa annahum na maa laa dana danañu wax ba wax loo xam ne duñu ko def fii sax déggoon nga fi ku fi way naan di way kenn naan ko yaay sama yàlla xam nga ëpp na waaye way moo ko mel foog mu ëpp rek ila lazina lu mooy ñi nga xam ne noo gëm nañ julit yi day ñoom bu ñuy way danañu sàmmoonteeg yooya wa amilooti ñu jëf asaliati farateeg naa yi ca way wa wa zakarullaha ñu tudd yàlla ca way wa katiran lu bari wantasaru ñuy dimbandiku ca way wa min baadi ma dulimu mana ñu cay fayu comme ni Hassan doon def benn waykat nee na kamuy muy way di ko tagg daanaka jox na ko la yàlla yoroon lépp ndax dafa ñëw ba ne ko shiita la ma shaati l aqdaaru faxkum fa anta alwaahidu alqahaaru lu neex mu am du sax lu neex dogal bay am attel yow yaay kenn ki yaay aji not ji way moo mel noonu booy way fa nga wax lu ëpp moo tax gënut waaye yàlla nee nag ci way nag ku ci wax nit lu ëpp wala nga tooñ ca nit wasa sa yaalamu xal naa xam lazina ñi nga xam ne zalamoo tooñ nañ ci way ba xas ci doomu aadama wax ci lu amut xal si nañoo xam ëllëg bu ñuy dajeeg seen borom ay yemun xalabin ban